asalaamaaleykum waa àdduna ñu ngi leen di bu baax di leen jaara di leen baalu àq di leen baal àq lu bari seen sopp bi la Sëriñ Modou Kéwal eh, ak tournée européen bi nga xam ne chaque année ñu def ko ren nag plus particulièrement ñu ngi fii ci France eh, war fi jógee continent Allemagne war fi jógee dem Belgique war fi jógee dem Japon war fi jógee dem Genève ginnaaw loolu war nañ dem Italie war nañ dem Espagne ñu ngi ñaan yàlla. ñaar yàlla yéen ñëpp képp koo xam ne incha allah rabbi yàlla boole woon nañu dañu def effort xat na nag waaye dinañu def effort ba ba ba gisante incha allah yàlla na yàlla def jàmm ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne fii nag tey ci euh, macha allah Grenoble ndax gis ngeen bind nii macha allah donc cameraman mën nga ay montagne nag la ñu yéeg ay montagne yoo xam ne daal ay bulle ay bil ci ay ay lu melni ni bul daal si la ñu rek yéggal ñu ci kaw montagne yeen ñëpp xam ngeen ni ñun gëstu daf ñu neex yeen ñëpp xam ngeen ne di bëgg di gis lu bees daf ñu neex lolu mo waral ñaar bu ñu joggé dañuy profité ci occasion yoyu pour mëna gis leneen lu ñu gisul woon pour mëna xam leneen lu ñu xamul woon pour mëna découvrir leneen lo xam ne découvrir ñu ko ndax dox dana waral ñaar dox dina waral xaalis dox dina waral xam-xam lolu mo waral ñaar ñu ñëw fii ci borom ñëw suñu bil bi bil yaa ngi noonu di yéeg mooy bul yi nga xam ne moom ngeen gis ñu yéeg a wàcc ci lañ ñu yéegal sànq waaw mu doyoon waar lool waaye yàlla dogal na yéeg yéeg nañ ci jàmm kon nag su ko defee yéen ñëpp ngeen déggee ko noonu information baa ngi noonu ngeen xamee ko noonu ñu ngi fii incha allah suba ci kàttanu yàlla wala ginnaaw suba la ñu war a ya, dem Allemagne buñ fa jógee ñu ngi war a dem Belgique noonu daal lañ ko war a toppee espace Schengen bi incha allah ba yàlla indiwaat ñu si jàmm Sénégal incha allah salaamaaleykum